asalaamaaleykum téléspectateur de la Proxi TV muy la wut mars ñu defal ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal fa tubaar fa kàlla macha allah ñi nga xamante nag ñoo woote muy ànd jigéen ñi déggoo yi ci Kër Massar fii di jokku alaaji bare tubaar fa kàlla defoon nañ ko daaw fekkat dañuy baaxantal muy la 8 mars di fête ñi nga xam ne mooy fête jigéen ñi tubaar fa kàlla boo ko waxee suñu yaay nañ gis seen bopp xale jigéen ñi gis seen bopp seen bopp muy fête bi nga xamante muy bis bu màgg bis bu riis bi nga xamante ko jëlee jigéen nga xamante mooy télé bu mag leen ambiance nga xamante moom lañ fi andi bi kese nee naa leen dina neex dina yëngu ane ba fa tubaar fakal loo jël mu leer sama waa ji sa fakat bi dama bëgg nga toog mu tuuti daal xool wan leen li nga xamante moom mooy anima ambiance bi Kër Massar merci beaucoup aca doxal di topp ma ñu xool ji ambiance maa ngi sant bu baax a baax. tey jii lan nga yëg ci 8 mars 8 mars muy feetu jigéen ñi nga xamante ne jigéen ñi lañ ko jagleel. ñii waa Jokalante ànd déggoolu ci alaaji Jokal alaaji Bade xewle lu mel nii muy safar bu mag lan laa gis yow lan nga yëg lan nga yëg tey. waaw contentement bu rëy rëy rëy ndax yow yow yow yow yow ban ba ma wax loo damay wax man du wax sax si ay ay ay ay ay ay euh, télé yooyu mais yow de dëkkandoo nga rak nga xarit nga ku neex nekkal nga wax deug fa yalla 8 mars bi dama la ci ñaanal bu dewe ne yow mu nekk sa première année au mariage loolu la la ci ñaanal ndax jambar nga yaasin bubu nga jigen ju man gor nga da ngay teel yow di di naajee wacc wax deug fa yalla contane nañ bu baax baax yow borom baax nga. mais contane ci 8 mars. wa contane nañ bu baax ci 8 mars. ba yaa ngi maa ngi contane seri Ba. wa <laughs> yaay Serigne salio soxna fallu ak. jàmm waa xeeboo ko tey Proxi TV yaa ngi koy seetaan Proxi nga yëg ci biir marché bi loo yëg kontaan bu baax kontaan bu baax suñu marché bi ak ni maa yaa ngi koy yëg bu baax lu mel ni 8 mars muy feetu jigéen ñi ñu jàng ko jagleel leen ko tey samay xarit xewle invité leen ngeen ñëw lan nga yëg ci sa combat tamit dëgg du neex Thioune Demba Yacine Sagor nee naa la saa su ne nii lay demee ba ba tey mi ngi neex mais ñu doxal tubaab xoolaat ñeneen ñu war a wax sabar gi. yaa rek oui merci ah, bi rek ah merci beaucoup. defoon nañu ko daaw fekkee demee nañu baaxantal 8 mars bi passé da ngeen a toog fii tubaab fa kàlla 8 mars ñëwaat ngeen def lu ñu mel ñu fekkee ko ci jàmm muy fête jigéen ñi képp si àdduna ñëpp a koy fête bu tubaab fa kàlla macha allah ngeen def seen sabar bu mat. woo li nga xam ne mooy Prestige TV télé bi la jege dina war sa bopp moo tax dina war sa takkandeer 8 mars en tant que jigéen en tant que jigéen lan nga yëg ñaaw. kontaan nag ci 8 mars bi defoon nañ ko daaw fekkee ko déwén yàlla nañ ko defaat déwén di ñaanal jigéen ñëpp ku ci nekk li nga bëgg yaa ko xam yàlla defal la ko ah yàlla nañ ko féetalaay ci bari ñoo ngi leen sant di la gërëm di sant waa Prestige TV ci kaw ci kanam ci lu baax. uma roda. yow Amar contentement nee naa leen bis day fay bis ba muy lebal bis le huit mars bi passé boo demee fépp ci Sénégal nit ñaa ngi koy ndax jigéen moo yaay ñooy yor kër ñooy jur ay doom mu métti lool tey ñu jël 8 mars bi nga xamante ne mooy seen suñu bis ñun ñëpp def ko nit ñi di ko intérieurement daa kontaan rek ndax wii femme jigéen ñi wii femme jigéen ñëpp a ko bokk waaw képp kuy jigéen rek nangoo daan sa doole rek wii waas yaa ko moom jigéen ñëpp jigéen mën nañu wax ne monde bi yëpp ñooy 8 mars waaw li nga wax rek chaque année dañ koy def ren dañuy dañ koy dañ koy baaxantal rek gis nga li mu toll nii ñu kontaan loolu nag ñu woote ñëpp a wuy si ñu ñi ñëw ak ñi ñëwul ñi ñëw ak ñi ñëwul yëpp tey 8 mars yi ñoo bëri waaw. waaw yéen tamit ñoo leen di sant di leen gërëm bu baax di sant Ndeye Niang di ko gërëm bu baax ndax chaque année macha allah lu ne la siy daj. looy wax proxy. ah xanaa kontaan si yéen. yéen waaw waaw Diagne yaa bay kontaan naa maa la gën a kontaan li nga bule orange ba lan la di la jàppale rek sa teen wa merci kontaan naa gërëm di feeti ñi nga xam ne ma feeti jigéen ñi tey 8 mars fépp ci Sénégal fépp ci àdduna jàpp naa ne ba mais en tant que maire looy sant ci 8 mars waaw huit mars ni ma koy dundee lu neex la lu metti la waaye tey day neex nag ndax wax dëgg yàlla huit mars feetu jigéen ñi la feetu tante yi feetu maam yi la feetu yaay yi la feetu bàjjan yi cousin cousine yi la muy feet goo xam ne dinañ ko dund mu neex ndax kenn du may wax du jigen ji gën la parce que lu mu gën moy jur waliyu moy jur xut bu moy jur président moy jur loo gis te kër go amul jigen rek du dem ken du way jur ken du yaay ken du baay waye it ken du yaay ndax sang bu tedd bi muy wax teralal way jur nday la jëkke metti metti yëpp jigen moo koy dund kon dañuy kontaan rek ci bés bi lu ko nit mën a sargalee ko nit jigéen mën a dundee rek na ko dundee noonu parce que lépp ngi ci biir 8 mars lépp ngi ci biir suñu xol sedd na ci suñu doom yi. waaw yaa ngi koy bu baax baax waaw. allah ñu ne tey Jokalante moo taal ay ma sol nii ñun moom lañ wate soow waaw ma ñëw tamit waa koñ bi nekkaat même chose ma jógee service rek ñëw wàcc nii ànd ak xam sama waa koñ ndaxte tamit amoon lu sa waa koñ vraiment ñu koy yàgg di ko def heure bu ñu ko defee mu réussir macha allah tout c'est grâce à Ndeye Niang ñu koy sant di ko gërëm ku baax ku mën jiite ñoom awaak ñoom ñëpp macha daal chéri ñaana ci kaw ci kanam proxi moo koy yëngal ñi rek ne. waaw yaa ça va bien. waaw bisu le 8 mars bi di bisu jigéen ñi di bisu jigéen ñi tay ñëpp a ngi koy féete ngeen defar ko daw ñu fék ko rek ngeen koy tollanti mu nekk ay jigéen yi nga xam ne da ngeen a déggoo ci koñ bi loolu yëpp xàccandoo yéenay dóorandoo tubaar fakal la 8 mars tay ji yow Saliba yaa lan nga sentir sa bir xol. santé ak mbégte bu reuy reuy la sentir ak fierté ci jigéen ñi ndax ñu ngi ni rek ñu ànd doon benn. teel a xëy du jigéen ñaa nii waaw kay macha allah. yow Mbaye Diagne tey moo togg añ sa jëkkër a togg añ sa jëkkër moo togg maa la wax lii Mbaye rek moo def moo sa nga xam ne man damaa wimaas tey sa fan dàppoo kayee rek waaye mais ndeysaan xam nga ñun waa Proxi TV dañoo ñëw fii ci Kër Massar ki ne fii ñu ñëw mooy fan ay te ñu ñëw fii nga xam ne fii moom mooy jokkul alaaji paate ànd ak ki nga xam ni kii nii moom mooy suñu patron di suñu caméraman bi nga xam bi moo gën a mag ci caméraman yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bépp télévision ay ca may tàmm di wax naan gaañaa ngi ci gaañi may neexu ñoo ràññee mais Proxi TV du ñu ñoom te duñu ñu ñun ndax li nekk si ñun newul si ñoom ki ne li newi si ñoom it newul si ñun yoolu kenn kenn def ko kudul yàlla buur bi moom mi nga xam ne bii mooy boroom lépp fépp ku mu jàmmal nga am jàmm ku mu ko xañ nga ñàkk ba faw te du ko def gars yi ne leen yéeneente jàmm waay ah tey jii nag ki ne merci asalaamaaleykum waa jokkul alaaji Pate ñu ngi nuyu délégué de quartier bi ñu ngi nuyu notable yi nga xam ne yi ñoo nekk ci dëkk bi ak ci koñ bi ndaxte kër boo ciy dugg dangay ngay fëgg bunt kër gi borom kër borom kër gi ni la entrée monsieur le délégué de quartier foo mun munti nekk nga ñuy déglu mu sori ak mu jege ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñëpp ki ne doxalal ma dégg. nee naa leen ko luy mais defoon nañ ko daaw a mais li sama xel déggoo de Kër Moussa di ñu woote dëgg la bisub tay bii dañuy dàq naqar daal di dugal li nga xam ne lii mooy bànneex xool ko la mu sañse orange noir baa ngi noonu jaajëf euh, euh, président dañoo bëggoon nga ñëw fekk ñu fii ñu am luñ la laaj. nga am nga am nga am loo ci tontu ndaxte ki nga xam ne kii nii mooy suñu jigéen bii Ndeye Anta Niang ak délégation buy àndal muy ñi nga xam ne ñii ñoom ñooy waa ànd jiboo ànd déggoo defar Kër Massar nekk ci ginnaaw ki nga xam ne kii nii moom mooy Alioune Badara Seck muy le futur président de la République du Sénégal tàccu leen loolu waay Alioune Badara sek tamit ni man duma nangou nangu jiitu nangou nangu jiitu ngeen di top sama ginau, dama len di jital top ci sen ginnaaw di len leralal yoon wi lepp lu ngeen wàqi mësul moom Alioune Badara sek ki nga xamni ki mom moy futur président de la republique du senegal tay ji man mi ma def bande annonce bi ci radio ba man mi la ndaysan muy muy lo xamni li luma neex la luma contane ngi non jerejeuf Alioune Badara say ngi dafa am loo ci bëgg a wax. ah. ndeysaan. moo na leen ma dugal na ma président de la république du topp sa nga bañ ñu doo duñ topp sa ginnaaw da leen di jiital xale yu jigéen yi lan nga indi pour ñoom ak lan nga nag pour ñoom lan mooy projet bi nga xam ni moom nga taxawal. waa Jokkul maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk si sa tur ak sa sant di jiital bi kilifa yi dëkk si gox bi suñu weesoo loolu ñooñu nuyu bi waa association bi di si jiital soxna Ndeye Niang mi taxaw. Euh, ak ñi mu àndal ñëpp ku lim da ngay juum vraiment kontaan nañu ci seen taxawaay kontaan nañu ci sanse yi sanse yi rafet na li ko waral nag mooy journée internationale des femmes tey bisum jigéen yi la te nag moom lay wax àdduna bi li ko yor jigéen yi la donc suñu waree tey sargal jigéen yi waa jokkul tey invité ñu fii ci événement bi lépp loo xam ne dañ ko jàppoon dañ koy bàyyi ñëw fekkee journée bi célébrer ko ak yéen am yéene àggali liggéey bi nga xam ni moom la ñu tàmbale woon fii Kër Massar parce que nag man moom laay wax bi ñu jógee démb la du tey ñi ñu doon àndal démb la woon suñu ànd ba tey ànd boobu dañ koy àggali ak ñoom ndaxte li ñu yëkkati mooy ànd ak ñoom liggéey Kër Massar li ñu yëkkati mooy développement Kër Massar te fii nag ku ko xool xam ni ay actrices de développement rek fi nekk donc dañuy sawar nekk fii. ay président euh, développement Kër ñu gis dëkk bi ni mu lëndëmee ngeen ngay lan mooy sa xalaat ci loolu waaw damay bañ a defaat sama campagne bi sax parce que dëgg neex yàlla mais nag sant yàlla defe naa am nañu am nañu yéene pour Kër Massar am na liggéey boo xam ni waa Kër Massar soxla nañ ko ñu liggéey ko fi yàlla def na dugg nañ ci ay élection génn nañ si yàlla def na li gën ni ma ko waxee sànq parce que gëm naa ni yàlla ñi mu fi teg mooy ñi nga xam ni fii ñu toll nii si Kër Massar ñoo fi gënoon ndax yàlla di gën rek lay def ñooñu nag li ñu war a def mooy ànd ak ñoom ñu liggéey ndaxte nag Kër Massar mii duñ ko bàyyi kenn fii liggéey rek moo fi am ndax liggéey lañ fi soxla wax nga ko koñ ñi lëndëm na ñi ngi jëmaat si mbënn bi nawet baa ngi ñëwaat maara day taal yi suñ si taxawulee léegi inondation yi dinañu laat sport bi sooxe na culture bi sooxe na santé bi sooxe na jàng bi sooxe na donc li sooxe bare na li ñu war def nak ñun wa Kër Massar moy baña tok suñu kër yi teju motax tax bi ñu jógee si élection yi ñun dëgg la ñun politique bi du suñu liggéey man si privé bi la nek waaye fep fu ñu amee jot bi dañuy waccat ci terrain bi agali liggéey bi ak wa Kër Massar lool nak lañuy wo wa Kër Massar nak té képp kuy compétence su Kër Massar war nga ci japp pour ñu mëna soppi li nga xamni moy di Kër Massar ndax li Kër Massar li muy am si jafé jafé ñi ñu fal ko rek sax mënuñu ko régler donc ñun ñëpp il faut ñu japp si té nak liggéey boobu ñi koy jiite jigéen ñi la ndaxte ñoom ñoo nekk ci terrain bi ñoom ñooy actrice de développement bi ñoom la ñu war a ku bëgg impulser développement en tout cas ñun suñu programme loolu la woon kuy impulser développement ku bëgg développer Kër Massar bi ci jigéen yi ngay ko. jigéen ñi tàcc leen seen bopp li ñu neex na de tàcc leen lool. moom mais président ba tey sànq comme li nga wax nawet baa ngi ñëw euh, ndeysaan dëkk bi dëkk bi yàqu woon na trop. nii te ndox mi bu jaaree ci tali bi def na mu defoon daaw ndax tali bi yëpp yàqu na. ñu lay ñu lay ñu lay laaj lan mooy sa xalaat ci euh, yoon yi. waaw loolu yëpp moom lay wax rek loolu yëpp xam nga du ñu defaat campagne bi loolu yëpp suñ ko tënk si programme loolu nag mooy lu ñuy wax ñi nga xam ne ñoom lañ fi teg ñoom ñoo war a impulser liggéey boobu liggéey boobu ñoom lañ ko dénk lépp luy jëm ci defar infrastructure muy infrastructure routière muy infrastructure sanitaire muy infrastructure éducative scolaire. seen liggéey la ñun li liñ ci mën parce que nag li citoyen bi mën tolloowul ak li nga xam ne moom la autorité municipale bi wala autorité état bi mën donc ñu li ñuy def ay plaidoyer lay nekk te loolu nag tamit suñu liggéey la ndax tey ba tey sa dernier mot damaa bëgg nga fàttali mhm. nit ñi ñi nga xam ne ni moom mooy xale yi jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo la topp mhm. dar la ni dar manko te ndeysaan am ci yow yaakaar mhm. lool ma bëgg nga wax ñëpp ngi lay dégg lan mooy sa ci ñoom waaw loolu moom partenariat buy continuer la ndaxte association bi amna lo xamni xam nañ ko ci liggéey te deug neex yalla ñu am ci mbégte bu mat sëkk ndaxte lépp loo xam ni séqoon nañ ko ak ñom muy ay terme de référence yo xamni amon nañ ko ci suñu partenariat dañ ko respecté bu mat sëkk loolu dafa am lu lay firndel moy lan ñom ay kat lañ moy lan moy fiñu jëm xam nañ ko moy lan dañu soxla rek ku leen pousse ñu dem partenariat bobu lañuy continuer ak ñom parce que li ma leen doon wax la rek ñun li ñu doon def ci wèr yi ñu joggé phase test la woon. dañ doon tester li nga xam ni mooy suñu relation ak ñoom test boobu yàlla def na concluant na fi mu nekk ni li si des mooy ci kaw ci kanam ànd ak ñoom liggéey si partenariat boo xam ni day doon gagnant gagnant waa jokkul gis si seen bopp. ok waaw ci leen ne may ci kaw ci kanam ci la baax. mais ah. li ma la bëgg li ma ko bëgg a laaj. li ma koo laaj mais ci yow laa koy jaarale. en tant que tey li nga ne mooy bisu jigéen ñi di 8 mars yow Chérif noo génne sa kër yaa toog wala. kañ tey waaw sànq de wax dëgg yàlla maa taay. <laughs> léegi laajal ma ko honorable. waaw honorable yow tey loo def. waaw gis nga man mii sax moo tax mënu ma fi yàgg <laughs> mais mënu ma woon bañ a ñëw nag. da ngay da ngay da ngay taali reer wala da ngay yekki reer. fi mu nekk nii ñu ngi may woo. waxuma loolu da ngay taali reer wala da ngay yekki reer. non man damay def comme yow damay def ataaya. <laughs> waaye tàccu leen nii waay tàccu leen tàccu leen président waay tàccu leen président voilà.

li tax proxy am doole bi nga xam ne moom la am tey si biir Sénégal si banlieue bi dafa fekk ñi fay nekk di fa liggéey li ñuy def dañ ko man dañ ko xam donc lii da ngeen di soog a door si kaw ci kanam la Kër Massar li fi nekk si compétence ci kaw ci kanam rek lay nekk incha allahu rabi ñu ànd rek bokk nekk benn bàyyi par parloo bi liggéey. dëgg la am na a am na lu mu bëgg a téye ko ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu monsieur le maire ak staff bi mu ànd ak ñëpp mu xam ne suñu coordonnateur tonton Issa Ansou Ibrahima ak Babacar vraiment sama baat bi dafa dee mais kontaan naa trop trop trop trop ci présence monsieur le maire le maire moom Alioune Badara Seck xam nga kon niñ koy waxee futur président de la république mooy suñu ambition ci moom incha te ni ngi ciy liggéey te yàlla na ko yàlla def mu nekk lu gën ci ñun ñëpp jokkul moom kenn du ko fi waxat fii moom maanaam dama naan basam fii mooy basam mooy daal fi am mënu am feneen te dañ yàgg. ma nekk fa ngay a woo. li a baax a baax ay jigéen yu baax. su ma ay a ngi nii toog soxna Ndeye Kébé ngi ne. dama kontaan tey bi ma ko gisee. ak ñeneen ak ñi nga xam ñeneen xam ne ñëpp vraiment ku lim rek da ngay mais moom laay wax man jokkul sax dama see bokk ndax sumay maamu lébu fii la ñu bokk. donc ñun dafa am loo xam ni euh, muy jokkul muy Alaaji Paate muy ay numaat yi Kër Masar benn bokk la. kenn mënu koo xar ñaar ñun ñëpp bokk. nañu joxante loxo soppi li nga xam ni mooy suñu gox bi ndaxte nag dañ ko mérité fii ay goro fi dëkk ay garmi ñoo fi dëkk donc nañu ànd liggéey defar suñu gox bi. ndax mu mën a jëm ci kanam ñu mën ko bàyyi suñu doom. dëgg la dëgg la mu ngi indi enveloppe bu am doole jëm la ci jigéen Kër Massar. nga ni. man maa lan. Alioune mi ngi préparé enveloppe bu ah ah, kuy saaga. ma kuy dóor mën kuy saaga. lim la waaye kuy dóor kuy saaga man ñëpp koo koy tànn Alioune Badara Seck le ah futur président de la République du Sénégal tàcc leen noonu waay. dafa leen waxoon élection. bu ma gañee bu ma da leen di financé na leen première phase de test def na ko deuxième phase mi ngi ñëw dama ni jigéenu Kër Massar nañu takk ba mel takk dute kuy liggéey ku nekk di xëy fajar ale Badara Seck dañ dal sa kaw bi la jege di la wan sa bopp tey bu ko defee noonu ñu daal di rek ba beneen yoon amaat contentement chaque jour nee naa leen sotti si ak def si woon dañ baaxantal rek dañ ko defoon daaw fekke ko mu lu neex lu am ampleur tuwaat fakal la macha muy 8 mars di bisu jigéen ñi bisu yaay yi bisu rakk yi mag ñëpp ñu ñoo ko bokk partout dans ñu ngi feete li nga xamante ne mooy bis bu màgg bi tuwaat fakal la ñu yow jokkul muy suñu deuxième muy ànd déggoo dëkk jokkul alaaji Paate ànd ak sama xarit sama doomu ndey mu dëjee Dija Chérif ànd tamit Alima mi nga xamante ne mooy suñu stagiaire duñ ñuy Demba Yacine Sagor fi ma génn nag du ma tay di ko wax à chaque fois muy Ousmane Diagne moo ma ñawal lu yaa ngi li tubaab fakkaale dama bi nag xam ne Sadio Dabo moo fi jaar Sadio Kaba du moins di nuyu ñëpp ñi nga xamante ñoo toog di seetaan seen télé ñu ak Free Weekend Free caat li laa indi noonu tey ci samedi bi nuyu Dija bu baax a baax di nuyu waat ñëpp ñu fekkoon di gërëm waat ñëpp plus particulièrement nag di nuyu waa Proxi TV ñëpp ci kaw ba ci suuf mag ndaw góor ak jigéen amal contentement bu baax a baax peace and love ba beneen programme ak beneen ak feneen ak feneen mën a nekk géejewaay Pikine yëmbal caaray wala jaxaay xaar leen ñu ngi ñëw peace and love bu baaxee ñu dem